bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi am mbégte di ànd ak fii ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci séntu weer wi nga xam ne moo di rakkaati gàmmu eh, ñu ànd ak commission bi ci njiitul sëriñ eh, Abdou Diop imam waaye ñu feggoo ci ak waa daayira Muxaddamatul Xidma ak bokk yi nga xam ne ñoo ko daa taxawee eh, ginnaaw boo xamante ni bii julli nañ timis ba noppi yéene woon nañ ci rajo jumaa ji ne sëriñ bi nee nañ séntu weer wi te ko ci xam lu wér nga ñëw yëgle ko bi ñu doxee ba loolu itam jokkoon nañoo ak sëriñ Bassirou Mbacke mu sëriñ Abdoul Khoudous nekk ca Daarul Muxti dox suñu diggante ak waa Tiwaawoon jokkoon nañ ak imaam Diène ñi nga xam ne ñoo nekk commission ba nekk ci Dakar jokkoon nañ ak région yi eh, bi nga xamee noppi nañ jokkoon nañ ak sëriñ Serigne Touba Cheikh Mamadou Mountakha ndigal li nga xam ne moom la joxe moom la ñu fas yéene déglu ci kàddu Serigne Abdou Diop imam. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaw ni ko Serigne <coughs> Serigne Fallou si la waxee rek. mooy nan ko daa defee muy yéene ci jumaa ji ne sëriñ bi ñu nañu séntu weer wi te lu ci waaye nga ñëw yëgle ko mbuñ ci ñaar fukk fan ak ñeent yu ne nag ko ci def ci weer wu biñ ko defee ba noppi nag léegi to dañuy toog ci sow di taatan xibaar yi ak di séntu bin taatanee xibaar yi di séntu nag ba bañ àgg ci noddugee te di déggun ci genn wet foo xam ne wax nañ ne gis nañ ko fa lañ daal di jokkoo ak kër sëriñ bi sëriñ Mouhamadou Mountakha wax ko ni mu demee biñ ko waxee ni mu demee mu ne waaw ginnaaw ñu googi noddugee de kon mënees naa yëgle ne feeñut kon ñu xam ne weer yu feeñut kon suba ci alxames ji mooy mat mooy mottali weeru rakaat ji gàmmu ko waaw nga xam ne maamu koor kon mi ngi doon benn ci ci euh, benn fan bi mi ngi doon ajjuma kon ñu xamee ko noonu xam ne weer yu fee feeñut dañuy mottali suba fan fanweer fanweer ginnaaw suba ci ajjuma ji mooy doon benn fanu maamu koor kon nañ ko xame noonu tey ñaan yàlla yàlla def nu xéewal defal nu xéewal ak jàmm ak sutura ak tiraang ak dang gaa yi nit ñi ñu fiy jàppale ñëpp nag mu leen muy euh, ci rajo yi nga xam ne da ngeen ko sikaaf sikaaf ak ak euh, Eh, ak eh, Fallou waaw <laughs> Touba Fall ak yooyu yëpp ak Lamp Fall kon yooyu yëpp ñu ngi nii ci jàpp ñu ngi ni jàppale bu baax a baax di teew di jokk ni ñu mën a jokkoo gox yi ñëpp di xam ne ñu demee ci yëgle gi ak ak ci yëg yëgle gi séentu gi ak ak yëgle gi feeñ gi wala ñàkk feeñ gi lépp noonu noonu lañ koy demee kon ñu xam ne daal suba mooy mottali weer wi ginnaaw suba mooy doon benn fan ñu xamee ko noonu bu baax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa